yegg si nañ ci fas ci dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. naka suba si. sant alhamdulilah. Euh, Walf moom nga tiim lu mu ñu xëyee tey ci xëtam bu njëkk. waaye yéen kay xëyee dellu si waat <laughs> gi neexul ba neexul waaye Macky Sall mu ngi dund dafa jàpp ne daal euh, opposition bi ñu nga nekk di théoriser beneen deal bu bees yéenekaay gi la xëy dellu siwaat euh, yéenekaay gi dellu siwaat kon ci chronique gi nga xam ne Ousseynou Gueye mu ngi koy defal daanaka alxames ju ne. ngoog euh, turbine. nangoog turbine ci wàllub verdict ba. di la turbine xëy dellu si waat ci na ngay xal daal mu examiner ci lu jëm ci décision juge Sabassy Faye Juan Branco dina dana fekk si Ndakaaru ni aljuma ji ngir fekkee si manif eh, audience bi lee euh, Sénégal gi ne ndax Sénégal daa ñu décision yi nga xam mooy tukkee ci cour de justice bu CEDEAO noonu la ko yéeni kaay di la tribune xëy fës yor yor bi génn gu ca yéene kaay gii di yor yor dalal Mamadou Lamine Diante mi coordonnateur LACOS ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naatango yi moom nee fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre askan wi kon ñoo war a taxaw jàkkaarloog président Macky Sall xamal ne ko Ousmane Sonko dafay bokk par force noonu la ko yéene gii di yor yor xëy fësalee Juan maître Juan Branco yëkkati ay kàddam wax ne ne dana fas yéene agsi fii ci ñëw fii ci Dakaru ngir di défendre liberté ak dignité souveraineté askan noonu la ko yéen kaay gi yor yor xëy fësal Abdoulaye fan kese moo des ci élection présidentielle yi di ñëw waaye nañ jàpp ne téeméeri fan la yoo xam ne ci réew mi le te li ci gën euh, bi nga xam ne nii euh, Cour suprême war si na koy amal ni ëllëg ngir statuer ci problème ci décision bi nga xam moo tëkk juge mm-hmm. noonu la ko yéen kaay bi critique xëy fësal 24 heures fu situation politique fii ci Sénégal révolte contre les attaques de droit ah. yéen gi dafa am ay kilifa yoo xam ne jóg parce que xeex ak état de droit bi nga xam ne nekk di salfaañe noonu la ko gi xëy fësale ñooñu nag ñu ngi si ràññee ku ci mel ni Mamadou Diouf ku ci mel ni Aliou ku ci mel ni mhm. euh, ancien premier ministre Mamadou Lamine ay homme d'affaires ku ci mel ni Bara Tall Cheikh Tidiane Mbaye euh, ba sax maam état droit bi fi nekk du nangu beneen kenn di ko salfaañe noonu la ko yéene kaay gii di 24 heures xëy fësal. source a moom ka mu dafa xëy fësal kii di Fadel Barro ci laaj ak tontu ki dox ci digganteem ak suñu naataangoo moom mi nga xam candidat la jëm ci élection présidentielle yi ñëw wax na tamit ci décider seen taxawaay wax na ci immigré eh, wàllu mbëkk mi wax na tamit ci ab ko ab eh, néew boo xam ni daanaka dañ koy exhumé mm-hmm. eh, koy taal fële ci ngi ci yéenekaay gii di source a euh, lu mën daal conseil présidentiel moom la ñu amal fële ci doona Kaolack foofee nag président Macky Sall nee na daal yéenam ak bëgg-bëgg mooy tëggaat Kaolack def ko mu doon dëkk bu bees tàq loolu kon am euh, le soleil génnagul Saloum junni milliard moom la président Macky Sall teg ci table fas yéene koy dugal foofee ci diwaanu Kaolack yéene kaay gi moo xëy fesal lu ni mel nee na dana fas yéene jëmalaat Kaolack ci wàllu mm, maanaam ci wàllu yoon defaraat Kaolack ci wàllu dooleel Kaolack ci wàllu énergie euh, wax na daal ci yu bare bare noonu la ko yéene kaay gi di la soleil xëy fesale euh, di le bi président Macky Sall di amal ay euh, maanaam mbir yi bu doon taw la daanaka ay milliards yu bare bare moo doon taw démb ci diwaanu Kaolack mm-hmm. njiitu réew Macky Sall nag fas na faa dugal ci toll ak junni milliards yoo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba defaral cadre de vie ba fexe daal ba kaaraange gi ñu yokk ko njàng meeg njàngalam ñu dooleel ko waaye tamit maison bi nga xam ne ni Euh, moom la ñu jagle wàllu ndaw ñi kon daal di yeesalaat nañ ko noonu la ko yéen kaay gi quotidien xëy fësale Abdoulaye. Euh, Sud Quotidien fës na ca. programme multisectoriel ah, mu soxal yokkuteeg diwaanu Kaolack noonu la ko yéen kaay xëy fësale Macky naa daal jékk ne euh, digg na askanu Kaolack lu ci toll ak milliards ci franc lu jëm nag ci taxawaay président Macky jamono ji ci yenn région yi Momar Thiam di di maanaam koo kon ci wàllu communication moo xam bu muy prôné. Mhm. noonu la ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësal. réew mi quotidien fexe ba Kaolack doon sële ba yoonu koom-koomu Sénégal loolu mooy li taxatoog président Sénégal président Macky Sall moo tax démb nag ci ndajeem xelukaayu jëwriñ bu mu doon amal xam ne joxe na ndigal daal mhm. diggante jàpp 2026 fa fas yéene dugal lu ci tolloog junni milliards ci francs CFA Sénégal ab kuréel la goo xam ni lu ci tolloog mhm. juróom-ñett fukk ak ñeenti intellectuel ñoo ko taxawal ah. ñoom dañuy jàpp ne fu mu toll suñu état droit mu ngi ci tànk yi naax saay te loolu nag waruñu koy événement bi nga xam naa dox ci diggante Sénégal ak Soudan euh, du Sud ñu jàpp ko ni kii euh, weekend bi yéen kaay gi la dafa xëy samp laaj bëgg a xam diggante Boulay ak Jackson kan moo si passé seen attaquant de euh, ratewul Lac de Guiers numéro 2 ci laaj ak tontu bi dox ci diggante ak suñu naatangoo yi moom mii Siteu ma ngay xamal Lac de na ko bu xalaat ne moom da koo ragal hmm. waaw boo xalaatee dafa ragal rek juum nga même bu fekkoonte ne sax dañu naan mbër bi dàq bëre ci làmb ji moom si teneer amul dara lu muy ragal ci moom noonu la ko yéen kaay gi di suñu làmb xëy fësidee yéen kaay gi nag xëy jox kàddu gi jël kàddu gi jox ko Boy Niang mi nga xam moo war a dajak kii di euh, Modou Lo ci weeru sanguier moom daal xam ne daal incha allah combat boobule sikk saka amu si dana fas yéene fer rongoñu Ama Baldé ak kii di Eumeu Sène ma ngoog diggé na ko euh, ñu xaar euh, googule combat Seydina Omar Ba